entretien exclusif ci Equivox TV ñu dalal tey maam Cheikh sec di président mouvement génération de force citoyennes de leader it coalition bi ñu dippee tànn sa maire section Guédiawaye kilifa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay par Ousmane. Euh, local yi da woo koŋ nga ni boo moytuwul dañ koy dàq fan la sa gis-gis boobu wéeru. waaw fu mu wéeru mooy euh, dama jàpp ne. ki nga xam si ni mooy organiser élection yi te bëgg koo ñàkk euh, te xool na ni situation bi fi mu tollu tey euh, élection yi moom électeurs yi ñooy population bi donc ñàkk na ko déjà parce que on ne peut pas dissocier et la population ci contexte bi ñu toll nga xam si ni jafe-jafe la ay athlètes am yi mu compté woon ñu dem ci compétition bi ñoo ñooñu dañoo déserté woon terrain bi abandonné woon complètement la population tey ba nu delloo sur le terrain gis nañ fa leneen lu nu xaarul woon mooy une population mûre une jeunesse consciente des femmes déterminées ensemble ñoom ñëpp. ñu comprendre les enjeux xam ne ñoom leur destin se joue su ces élections et aussi li xewoon ci événement mars yi ñu jàpp ne attiré na l'attention du président ci jafe-jafe askan bi ñu gis ne ba tey des na moo tax ñoom jàpp ne il va falloir sanctionner à tout niveau pour attirer son attention sur leur problème. mais est-ce que am nga firnde yi wane ni. dafa làmb làmbaat xool xoolaat càmbar càmbaraat mu wóor ko ni ci local ñu jëm du am dara moo tax mu ngi fexe nu mu def ngir dàq ko te bu ko waree dàqit nan la koy layale li mu koy layale mooy le prétexte sera un prétexte sanitaire avec euh, le retour d'une nouvelle vague dégg nga booba tey ñu ngi koy agité dans les télévisions dans les plateaux nga ko moom démb wërkaat démb sorte bi mu ci def il faut nga comprendre benn affaire présent à tout toutes les informations d'abord avant information yi nga xam si ni ñu ngi ko koy relayer à travers les services de renseignement ak les services secrets mais moom il a le cadastre électoral Macky Sall depuis bu nekkee ministre de l'intérieur su waat ba fii mu nekkee njiitu réew doomu euh, ku ko gën a maîtriser la cadastre électoral yeewul ci réew mi ah dama ne ku ko gën a maîtriser la cadastre électoral maanaam xam vote bi ñu ngi koy vote ak ñiy vote ñu ñuy falee ak ñu ñu ñuy folle yooyu yëpp moo ëmb moo ëmb lu naan cadastre électoral comme ni ngay naan cadastre foncier ni nga amee xam ni nga amee euh, maîtrise ci suuf si yëpp hmm? noonu la Macky Sall amee maîtrise ci électoral wala élection moom càmbar na sonde na jauge na seet na seetlu na waaye les résultats sont les mêmes mooy élection yi du jigéen donc tout ce qui lu ci lu ci lu ci des non c'est à toute échelle xam nga dama ne la ci au début mënoo dissocier un électeur ak population population mooy voté moo xam mooy ndaw bi moo xam mooy góor bi moo xam mooy jigéen bi mais mooy voté te fii may wax ak yow mm. à l'instant kenn ku nekk yaa ngi jàmbat nekk yaa ngi si ay jafe-jafe moo xam jafe-jafe bu mënta doon nag ci wàllu njàng ñii ci wàllu santé ñii ci wàllu dund ñii ci wàllu am accès ci yenn services sociaux de base li minimum ci mel ni ndox courant ak yenn détail booy seetaan les télévisions di déglu rajo wala les articles de presse nga ci def ay recoupement da nga xam ni c'est un pays à problème kon moom xam na ni du ci génn ndax du son adversaire du ñuy rek mu jàkkaarloo mooy ses opposants yu demee noonu mais son premier adversaire est la demande sociale mooy premier adversaire am ci élection yi donc ci pression la pression la nga ko teg pour mu organiser élection yi danga ko teg pression ñoo teg pression opposition bi l'opposition radicale waaw mais il n'est pas prêt mais il n'avait pas le choix fallait qu'on ñu arrêté date ñu waajal élection yi dem ci mais nii nit war a pare ci waajal pour dugg ci élection la majorité pare wuñ ci te tey ji boo xoolee dans toutes les communes Sénégal ñan fa investir ñëpp ña nga xam ñoom la ñoo bokk même camp ci majorité bi ñenn ñu ñoo njëkk a bañ ñoo njëkk a contester les choix ñoo rek tamit ay adversaires la adversaire lan ci ñoo xam ci ndax danañ ñenn ñi danañ bank seen loxo ñenn ñi danañ exprimé seen frustration ci biir campagne bi ñenn ñi duñ muy la mayu dans ces conditions nag ngay mën a génnee ci situation bi. jàpp ni kon dina génn wax nii ndax prochain jour dans les prochains jours les élections locales euh, n'auront pas man du ma gëm bokk mais nag euh, comme ñi kenn ku nekk yaa ngi sur le terrain di waajal ñëpp danañ ci dem mais man jàpp naa ni daal. ñi nga xam si jëloon noonu quinze millions de francs CFA dugal ko comme caution. Mm. Euh, ñooñu daal war na noo xalaat seen bopp ñu xool nu leen dédommagé ak ñu leen réparé léegi gi demee noonu donc mais man boobu ma ni. mais nag prétexte bi daal du lenn nag prétexte bi du dara danañ wut prétexte pour justifier ko mooy affaire la nouvelle vague bi nga xam si ne boobu <laughs> ñu koy agité. Euh, mais euh, du du du loolu c'est pas une raison suffisante loolu nag man du tey laa ko wax. depuis cette semaine mu ngi dans maa ngi koy wax parce que man je suis pas un, euh, un fan de plateau de télé rajo bi demee noonu man je suis pas peut-être comme ñu ma invité nii on est amis donc euh, yaa ma woo yaa ma convié peut-être mais euh, parce que du ma wax lu ma amul firnde lu ma wax rek si ci ma koy teg ci benn source bu bu fondé ñoom sont pas en tout cas prêts pour gagner ces élections pour dem ca nag je ne sais pas mais pare moom pour gagner man góomu ko. waaw mm. même bu ñu sàccoon sax ak lu mu mën mën moyen bu ñu mën a utiliser achat de conscience sotti xaalis ci dëkk bi yooyu yëpp c'est pas une issue li ngay wax nii dafay nuru euh, nguur guy jeex loolu ngay màndargal nii en dor des locales. Euh, am na ay ay similitudes quand même. vécu la fin de règne de Wade donc euh, mais fin de règne moom processus la hmm, donc c'est un processus euh, mais bu nu regarde yi situation bi nu mu demee na le contexte actuel ak euh, les erreurs les déviations l'exercice solitaire du pouvoir hmm, nga xam si ni même say alliés yëpp ñu koy décrire donc ak ces certaines décisions impopulaires impunité bi arrogance bi hmm. yooyu yëpp ak yeneen yi nga xam si ni chaque jour yaa ngi gis ñu ngi koy muy euh, agression yu ñu def nit ñi acharnement politique yooyu yëpp en tout cas euh, dafay présager une fin n'est-ce pas euh, je une fin de mais une fin tragique de de règne. Hmm. yaa ngi wax agression mel da ko dund gis nañu yàggul dara nga am. vendredi passé vendredi passé. j'ai été victime d'une agression physique euh, de nervis envoyé par euh, un présumé gendarme en service à la présence. Je pense que Boniface Negadou, quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai été entendu par les enquêteurs. Euh, le dossier euh, sera transmis au tribunal. Donc, euh, foofu laa bëggoon yëf yi dem fa comme ça li waral ñuy def acte yooyu ak acharnement yooyu ak agression yooyu nit ñi xam ko mais mënuñu koo xamee ci biir police wala ci biir gendarmerie mais da nga koy yóbbu ci audience publique afka yëpp toog ñëpp taxaw duggulee temps lu mel nii dira la dal lan la dangaa xam lu ñu xamul dangaa am loo yor ci ñoom wala tout le temps dañuy dégg président de la république wala cabinet président Macky Sall je rappelle que ni dalal nañ la ñaari yoon cabinet bi lan la loo amee loo yore lu tax ñu ragal la à ce point bu fekkee mën naa ko waxee noonu luy expliquer le fait que ñu topp la nii. ñoom ñu koy def ñoom xam nañ ko. waaye xam nga it. kaw activement intimidé wala peut-être di jéem a essayer m'inquiéter ma nekk sous surveillance à tout tout moment en permanence je suis sous surveillance la sécurité urbaine. par si les services de renseignement par là, les informateurs, les infiltrés. mettre la ci benn flèche boo xam si ni doo comprendre ñoom xam nañ raison bi laaj leen ko ñoom. bu nu yeggee douze bu yëf yi fekkente ne dem nañ ci jusqu'au bout dem tribunal peut-être danañ xam loolu amul nag avec mes avocats mes collaborateurs on va tenir point de presse et révéler le contenu. de tout ces de tout ce de tout ce surtout cet acharnement mais man li ma mën a jàpp rek mooy euh, c'est un c'est commandité. par qui? par des collaborateurs du président de la République peut-être qui ont peur que je révèle certains certaines certaines choses parce que tey lu ma mën a wax mooy booy wut. ñu quand vous cherchez des hommes euh, vraiment dangereux dangereux hmm. vide en politique mais dangereux dans les manœuvres les acharnements l'intimidation l'arrogance seet ko ci wetu président de la République ah. entourage bu bon la entourage du président de la République son cabinet ses proches collaborateurs ku leen gën a bon ku leen gën a yées ku la gën a nul gisuma ko ci benn cabinet en tout cas ci même sax suy wadd déjà amuñu baas kenn amu ci base doo leen gis ci plateau télé mukk ñu défendre le président ni seen patron wala son bilan wala le gouvernement bu nu xëyee daal ñëw nañ présence euh, Euh, peut-être euh, cinq minutes bu ko fa defee wala dix minutes quinze minutes bari na ils sont repartis ñenn ñee ngi ci hôtel yeeg seen géej yeeg les lycéens wala ci étudiants yi hmm? euh, ñeneen ñi ña nga ci clinique yaay faju parce hmm? que kenn wéeru ci ñoom fu mu toll nii léegi fii ñu taxaw di waxtaan je ne sais pas il fait quelle heure ne demoon à la présidence les bureaux sont vides secrétariat général sont vides kenn newu président dama ko bàyyi lépp lépp lépp lépp moo koy def ko amu fi benn loyauté ci digganteem ak collaborateurs yi def ci am ñoo xam si ni ay traître lan te seen traître yegg na ba ci ñu ngi utiliser ay circuits et canaux discrets euh, pour financer l'adversaire l'adversaire am na kuñ xam. nga man yooyu yëpp lu mu dugg ci dans les détails ndax dama ni ñoom ñoo xam lu may topp lan may acharné man ak mag Sall on n'a pas problème ak euh, même opposition pouvoir la société civile les activistes j'ai de très bons rapports avec tout le monde om ma ci xaar ma yàlla ak kenn on a de très bons euh, xeex yi ngi fi doon xeex yëpp fekkee nga ci lu bari ñoo koy ànd di ko xeex amul lu muy xeex ci réew mi lu ngi ko xeex parce que président de la république li ma sekk ak moom mooy li ñu président Ablaye Wade santoon parce que man ci président Ablaye Wade laa nekkoon moom ak Macky Sall mi Sall mi nekkoon suñu patron donc ñu ànd ak président de la république xeex boo yàlla dogal ñu gagné premier tour àndaat laxasuwaayu xeex Macky Sall gagné ñu deuxième tour président de la république Wade sant ñu ne ko jàppale. man ci dynamique boobu laa nekk bu defee lu baax ma apprécier encourage ko bu defee lu viole droit ak les règles man ak euh, l' opposition la société civile radicale wàcc su ci tali bi manifeste dénoncé ko donc euh, libre mais moom fii may wax ak yow nii euh, gis nga ni mu agité même question premier ministre beeg yépp yooyu da koy indiwaat yooyu yëpp c'est pour stimuler athlètes yi athlètes yi Mm. athlète politique am yi xam na ni euh, il fale agité cette question pour pour pour pour pour leen galvaniser leen en pour ñu am un peu de motivation ne ah bu ma gañee kat sama kii donc voilà le nouveau gouvernement certainement dana ma ci récompenser loolu la rek fii ku fi euh, naa la ku fi gën a maîtriser Macky Sall la cadastre électoral wala ci ku ko gën a mét euh, a maîtriser politique bu réew mi yeewul ci réew mi dafa xam réew mi sur le plan politique mën ko lool aussi il a toutes les cartes en main et il sait en servir mën nga yor carte yëpp te doo ko mën a jëfandikoo moom dafa yor carte yu baax yi ba pare di ko jëfandikoo. dafa les cartes yi mu yor bu dee report la ci lan la koy nan la koy redistribuer waat parce que tudd nañu fi ay amnistie pour Khalifa Karim Wade ñu ngi koy waxaat pour ñëwaat ci géej mbéy gi ñu mel. est-ce que yooyu yëpp. parce que xam na ci lu nu jëm fii bu fi nekk di raay raayal wala di doflu xam na ne ci violence lañ jëm. ci violence lañ jëm. suñu charte beeg ñàkkoo si ñun d'ailleurs sax cette charte là ne nous intéresse plus depuis que cet euh, de vandalisme a été opéré effectué chez nous au siège une affaire charte de non violence euh, ñu c'est une torsion ñun ça intéresse plus euh, tous les acteurs avertis savent que ci violence lañ jëm. violence. ci violence lañ jëm moo xam ci biir moom la ñuy ubbee sax élection yi te jour scrutin yi moom lañ koy tëjee parce que contexte moo ko laaj parce que dafa jógewul dafa dafa amul benn concession de part et d'autre pouvoir a ngi def ay mbir yu ay mi ngi poser ay actes yoo xam si ni e c'est des actes de violence un acte peut être posé de façon pacifique te fekk ni violence la. comme lii xew nii ak euh, l'audience de Djibril Ngom hmm? c'est pacifique mais de façon morale hmm? c'est une violence ku trahir ay nit trahir ay ñoñam hmm? nga war koo recevoir avec tous les honneurs préparer loolu yëpp ak sa communication mettre une enveloppe à côté chargé ko ba mu fees euh, di simuler une signature de chèque donc c'est significatif de, de, de, de venir, voilà, quand vous venez, voilà ce que vous allez trouver. Ça, c'est une violence. Parce que ñee ñu mu teg eh, un tiers dafa metti ci ñoom mooy war yor seen liste portel ko war leen surtout ci contexte bi mu leen waree nga ñëw ni da nga koy honoré da nga koy remercier bien que c'est un acte politique fort peut pour lui mais Euh, c'est une forme de violence. kon Sonko wax na dëgg ci donc euh, à l'instar de Sonko combien de gens nga teg ñu signé wuñu moo la du violence rek mooy parce que def nga acte bi mais mën nga ko def de façon euh, pacifique hmm? def ko ci fekk na violence la lii ñu def nii Karim Wade ko Ousmane fii nga dëkk sa papa yaay fii la na nekk man sama papa sama yaay fii la na nekk fii laa xam. sa réew sa réew nga xam kenn ku nekk tey bu réew mi doon tàkk gis nga bi mbas mi nekkee kenn ku nekk ñu ngi lay yéem a yóbbu nga ñibbi sa réew même boo demee immigration clandestine sax boo cee ñu ne fan nga dëkk ñu yóbbu la kon kon sa réew rek sa nawle sa la fi amatoo droit ci réew mi ak lu mënta doon kenn mënu ko justifier politique juridique tout loo mën a indi c'est pas un prétexte pour justifier ça ça c'est une violence Khalifa Sall mii ba nga xam mënutu la tey bokk ci compétition yi ndax li ñu ko teg c'est une violence ñii nga xam si ni ñu ngi bénéficier impunité te ay scandale euh, tey rapport l'AMP jàppale ñii of nag dénoncé leen ñii Cour des comptes épinglé leen ñoom ñëpp ne serait-ce que kenn sax inquiété wuñ ko te il suffit simplement la moindre des choses du camp adverse pour nga kii ko loolu c'est pas une forme de violence c'est une forme de violence dans les prisons xoolal ñu fa tëdd à l'instant fi may wax ak yow peut-être ñenn ñi génne na récréation pour xaw fexlu tout léegi ñu dugalaat leen ñu dajale leen ci benn kii boo xam paqueté leen nga xam si ni ñenn ñi seen kii da di génn sax ñenn ñi ñi ngay deeg hémorroïde ñenn ñi ngay kii y a pas de médicament y a pas de bon repas y de kii te euh, ñuy voter un budget bu leen permettre ñu lekk di naan nekk ci ay conditions yu baax yu respecté norme internationale loolu du violence boo duggantee ji nga ubbi benn cellule rek xam ne lii violence du ko wees kon y a y a violence dans l'air déjà y a une violence dans l'air qu'on respire en permanence ku nekk teg sa bët mooy dof dof lu rek wala nga peut-être nga ragal koo wax wala nga ragal caa dem waaye fi nu jëm Macky la xam naa ne ci violence la jëm kilifa diine yi ñoo la gën a xam ñii ci violence lañ jëm ndax kenn deful concession de part et d'autre pouvoir ñuy exercer ay actes yoo xam day indi violence l'opposition aussi dans son nihilisme dans son ci xadaram ak ci kiim euh, donc aussi souvent day poser des actes de violence c'est une violence de part et d'autre léegi nag dana toll foo xam si ni Euh, day toll ci ay proportion yoo xam kenn dootu ko mën a arrêté wax rek du ci du ko arrêté même pour su jógoon sol daal def ay kii du ko arrêté parce que déjà c' est des choses qu'on vit man mi nekk dans la banlieue nga xam hmm. suma coalition foofu lay yëngu mooy au niveau de Guédiawaye hmm. ñun la violence on le vit tout au quotidien chaque jour moo xam bu élèves yi wàccee moo xam ñu ngi liggéey chaque fois ñu gis xeex xulo saagante fe dalante fe moindre chose rek lu ndaw rek créer violence moo xam ci baptême moo xam ci ngénte moo xam ci ceet gis nga sunu stade yi waxuma la làmb ay football ak yu demee tànn lu xew que violence yi dafa nekk ci jeunesse bi te tey jii il représente combien su ci en taux de pourcentage démographique 75 pour cent de dose de violence dans ce pays ku responsable la de Macky Sall aussi du ñi koy képp ku yeewu ci réew mi ak koo mënta doon responsable nga ci ndax doo gis kenn koo xam si ni tey jii ñi fi def marche gis nga leen ñu wax ci affaire góor jigéen gis nga fi ñu fi marche di défendre yenente bi gis nga ñu fi défendre ku laal seen sëriñ mais gis nga fi une coalition nationale ak benn marche bu euh, déterminante ci contre la violence amul parce que ñu jàpp nañ ni ñu ngi ci réewum jàmm le pays est le pays est kii gis alors que hmm? euh, la boo xam si nii donc euh, ce sera pas durable. d'accord dans euh, yi. dañ leen recalé ci loolu ci dëgg lañ ko teg wala lan moo waral ñu recalé leen ak kan ngeen di finalement jàppale. waaw bon locales yi nag moom dañu ànd ak mouvement citoyen yi. ànd ak euh, les acteurs culturels les acteurs sportifs le secteur informel euh, yi ñi ñi yëngatu ci wàllu santé ak ñi yëngatu wàllu en tout cas toutes les catégories socio-professionnelles secteurs yëpp ñoo ànd ñu créer lu naan coalition tànn sa maire coalition tànn sa maire nag li objectif am mooy euh, tey comme yàlla dogal na nii bokkuñ ci compétition yi demoon nañ kii waaye da tee bokk donc bokkuñ ci ñi nga xam dañoo qualifié donc moo tax ñu ne kon nañu garder cette dynamique garder cette force pour aider la population affaire le bon choix parce que tamit booy folli da nga xam ki ngay folli pour yaa ngi koy folli pour juróomi at waaye ki ngay fal aussi yaa ngi koy fal pour juróomi at kon dafa laaj réflexion bu profonde ci choix bi donc le choix est capital. aujourd'hui à Guédiawaye présentement fi nga xam si ne coalition bi di yëngatu donc bien que c'est une coalition nationale boo demee ñu fépp dans les régions ñenn ñi ngi koy approprier mais tey jii les jeunes et les femmes yi nga xam si ñoo ëpp lu ñu ñu jàpp na ñooy voté wala ñoo gën a actif ci processus bi ñoom tey ils ont très tôt compris les enjeux wax naa la ko léegi ils ont compris maintenant que leur destin se joue sur dans ce scrutin moo waral ñoom donc ñu am ci benn engagement ñoom ñëpp ànd ak ñun ñu créer nest pas la coalition Tànn sa maire pour aider la population à faire le bon choix loolu rek moom mooy li nga xam si mooy objectif bi euh, candidats yi fa nekk nag bari nañu. Hmm. ñoom ñëpp euh, ñenn ñi ils ont pris rendez-vous ils figurent dans notre agenda politique danañ leen recevoir consulter leen euh, ñu wax ñu sur le plan ci wàllu sécurité ci wàllu. emploi ci wàllu formation renforcement de capacité ci wàllu nangam sangam wàllu euh, jigéen ñi les questions genre euh, wàllu njàng mi école yi nga xam si ñu ngi ci benn état délabrement bu doy waar ñu lañ ci fas yéene pour defaraat ko wàllu santé bi nga xam dañ leen a seetaan ba ci mbas meeg yëpp amuñu benn matériel wala donc pour mën a assister les ñu wax ñu ñoom ñëpp loolu lan lañ ci euh, fas yéene mooy ci seen programme mais après danañ leen signaloo ñoom ñëpp benn charte boo xam si dañ ko tuddee ñun les assises parce que ñun moo nekkoon suñu programme ñun dañ ni li nekkoon suñu programme mooy dañuy dem ci askan rek pour yóbbu suñu profil xamal leen ni ñun daal ñun ñoo fi nekk candidat ñoom ñu désigné ñu bu ñu falee ba noppi nag ñu daal di tenir ay assises communales moo tax léegi ñun loolu moo nekkoon suñu programme moo tax tamit candidat ñuy seet si képp ku bëgg ñu ànd ak yow da ngay signé bi mooy maanaam bu la falee. une fois après ba nga def sa passation de service plutôt fu nga xam nga ba nga def de service dañuy tenir n'est-ce pas des assises assises yoo xam si ni dañ ciy convier toutes les catégories socio-professionnelles yi ma lay wax secteur yëpp santé éducation voilà culture et sport et tout le monde ñu ñëw exposer les problèmes n'est-ce pas euh, ñu xool nag en fonction ci suñu budget bi ñu am annuel lan lañ ci lan lañ ci mën a prendre en en en en charge Euh, en fonction de priorité à court terme à moyen terme et à long terme lan lañ. est-ce que ñëpp ngeen di dalal pour déglu leen. wala ñëpp. ñun déjà am na bu ñu lay déglu bon sunu sunu mbooloo fa nekk sunu mbooloo fa nekk di la déglu donc di la poser ay questions te ñu aussi ñu lay poser ay questions donc ñu kenn ku nekk ci domaine ba nga nekk loolu ko xarañ nga ca mais ñun li ñu intéresse rek mooy rek ñu nu tenir ay assises impliquer population bi yëpp. ñu élaborer un plan d' action un plan boo xam si nii euh, un plan euh, peut-être moom moo lay permettre quinquennal donc comme durant sa mandat cinq ans bi donc ci plan bi nga sukkandiku pour liggéey mu nekk parce que day nekk boobaa euh, une gouvernance locale participative et inclusive. ndax taxalaatu ku nekk dañ ko ci dañ ko ci naa ci géej waay bokk nga ci ñi nga xam te ni yàgg ngeen ko xeex surtout ci bande de filao beeg ci aju est-ce que ci maire yi nga xam te ni tey ñu ngi leen reconduire. ñu war a laajaat ci bilan bi dafay doon demande ci leeral. donc dégg naa benn candidat mu naan takk ma ci laalewu ma ci mais euh, bande bi kenn setu ci euh, bala ngaa xam ba xam géejuwaay euh, loolu moom question boobu dama ci tontu sax brièvement mooy damay fàttali président Macky Sall rek lu ndaw Abdoulaye Wade nañu bàyyi xel ne ci. Euh, li déclencheur effet déclencheur bi ko wàcce géejuwaay la Abdou Diouf effet déclencheur bi ko wàcce géejuwaay la moom mii j'en suis sûr et certain que l'effet déclencheur bi koy wàcce géejuwaay lay départ hmm. te ci bande bii lay doon déjà rek euh, euh, xam nga ci dara parce que dégg nga imaamu géejuwaay yi voilà da nga yaakaar yaanaamaar ñoo initié woon affaire kii beeg yooyu doon xeex dana les imams de Guédiawaye déjà ñoo déclenché ñeneen ñi prendre le train am marche gis nga bande bi euh, xam nga tey jii jël na un décret déclassifié nañ ko dégg nga aussi ñu ne nangu nañ kër yéen jox ñenn ñeeg magistrat yi pour kii gi demee noonu parce que élection yu jub si moo tax il fallait que gars yi nga jox leen Doliprane wala paracetamol calmant quelque chose comme ça euh, mais en réalité. dara kii ci lépp nga ñu doon jaay ngay jaay ñu doon lotissé ngay lotissé procédure ba daal taxawul waaw ah, te ku ne nag set na ci waxul dëgg euh, bu nu euh, am na lu xew tamit cité Viviane foofu ca Géejawaay cité Viviane euh, Mame Boye Diao ak Racine Talla gëmloo nañ leen ni parce que ñoom cité Viviane dimanche passé mag ñi délégué de quartier yi dignitaires yi notable ñoom ñépp ñoo doon waajal une grande marche marche bu rëy boo xam si ni kenn mënu lu ko nettali ñu daw autorités yi yéeg wàcc ñëw jéem dégonfler la situation en coin danoo dem fenn askan bi dajale leen ñoom ñëpp toog nga xamal leen ni leen mbir mi dossier bi mi ngi COD mi ngi CCOD maanaam mi ngi impôt domaine jaar na commission des opérations domaniales maanaam ñu ngi koy étudier alors que au niveau du nga xam mooy hiérarchie bi dossier ba ne newoo fa amuñu suuf dossier yow nan nga mën a régler un dossier aussi important nga ni léegi ñu ngi koy traité fekk jaar par voie hiérarchique xoolal nga li ni problème yi nii le président de la république maanaam kon yow bëgg nga daal d'ici le 23 janvier fekk euh, kii bi jeex ñoom ñu doo ko découvrir la réalité kan la ñuy sanctionné ñu war a demaat ci élection député demaat ci élection présidentielle peut-être boobaa moom la ñuy sanctionné te pourtant maire ñoo ko def Racine Talla en personne le maire moo gëm loo paay yi waa cité Viviane leen ak Mame Boye Diao en complicité que ne mi ngi COD CCOD ñu ngi koy étudier alors que tel n'est pas le cas dañ ko indi indi preuve yi dañ indi preuve yi wane ni loolu am na ba ci def ñu def benn découpage delluwaat marche yu bees ci biir Wakhinane Nimzatt xëccaale ci Bagdad parce que xam nañ ni carrément école 25 ak euh, euh, centre de vote la du est pas un c' est pas un un bureau foofu ak Daaru Xan c' est des de vote li xam na ni centre boobu en en déjà perte na ko Racine Talla la donc pour mën a euh, réserver le gap léegi moo tax ñu jël Gounass day plutôt Bagdad donc rattaché ko ci Wakhinane Nimzatt école 23 jéem ak euh, maternité jéem a combler peut-être perte manque gagné bi muy am fële. ki nga seen manœuvre ak seen stratégie mais yooyu yëpp du ñuy wax ci plateau dama koy wax nii rek ba mu xam ne gars yi xam na nu mu demee mais loolu ci biir campagne bi lañ koy réglé. on n'a pas de problème avec quiconque on a de très bons rapports avec tout le monde les candidats je suis pouvoir ak majorité Macky Sall pareil xam nga tey man dama bokk ci ñi koy conseiller. Euh, Macky Sall président parce que man dama ko jàppee rek comme un de parti président de la république comme ñu ko ñëpp jàppee mais man bët ma koy xoolee rek mooy un ancien patron politique mu nekkoon su wàdd wàdd moo nekkoon mu jiituñu moo yoroon opération de désécurisation ah ñuy rocc gars yi idée ci biir gouvernement bi mu aayoon ci loolu nag xajam euh, voilà euh, ñu nekkoon ci plan Orsec bi ñoo nekkoon investiture yi aussi ba ñuy renouveler def ay renouvellement locales yi ñu jëmoon moo doon def renouvellement yi donc euh, donc on se connaît bien on a de très bons rapports amul problème bien que xajam la ci politique depuis euh, euh, day annoncé indo dawal kabo yi ci kii mais moom au moins temps en temps dana dégg ñu koy conseil dafa am ñu muy dégg ñu dul dégg ah mais des fois nga conseil benn affaire mu dégg mais conseil bi ñu koy jox rek mooy d'abord na améliorer la qualité technocratique et politique du personnel de la présidence de la république kooku priorité la avant premier avant ci mbiru poste premier ministre déjà mooy noonu kii loolu parce que euh, lu mu dugg wala problème bu mu am wala lu ko dal tey entourage bu bon boobu teg ku ci jiitu di Mahmoud Saleh hmm. moo seeli moom moo joxe ticket d'entrée pour entrer dans le bureau de Macky Sall amul kuy dugg ci bureau Macky Sall sur le plan politique te jaaroo ci biir bureau mag euh, comment dirais-je Mahmoud Saleh c'est lui qui délivre les tickets d'entrée hmm? te moo gën a yées ñëpp donc euh, c'est un c'est un moi souvent je pose la question de savoir comment le président puisse collaborer avec cet homme perdu au monde du crépuscule euh, dépassé par les événements hmm? koo xam manœuvre yi muy def nii yooyu c'est yooyu c'est des manœuvres ak stratégie de l'autre époque c'est méngoowul ak la nouvelle reconfiguration reconfiguration politique tey ak effet de conscience bi am moom ak manœuvre ñu def c'est c'est pas c'est c'est amul cohérence donc moo tax le président de la République na jël ay responsabilité mettre en place un gouvernement restreint mais aussi cohérent avec un programme prioritaire ainsi si loolu laa koy conseiller. d'accord te ba ca des aussi euh, c'est important également mooy parce que man réew mi déjà moom mu gën a intéressé mbiru local parce que après dafay jàll ñuy wax ci leneen te man euh, voilà je suis un acteur euh, ba ca des aussi euh, mu xam ne c'est pas pas une honte c'est pas une honte de reconnaître ses erreurs et ses déviations c'est pas une honte mm. parce que il est au millier gay au milieu gay ce qui signifie qu'il y encore des possibilités n'est-ce pas de, de, de, de, de, de, de, de, se donner les moyens de baliser le reste et de corriger sa trajectoire. Donc voilà le conseil que je lui donne. Nous lay gërëm également également di la sant ci invitation bi di wax ne aussi plateau bi moom yaa ci wañaar sama loxo mais demaatuma ci beneen plateau parce que man déjà du ma kii yi demee noonu ndax voilà juste un homme de terrain c'est trop qui est sur le terrain que les plateaux les réseaux sociaux voilà je suis un homme siècle jërëjëf ñu ñu nangul mooy fàttali Mame Cheikh Seck la di président mouvement euh, génération des forces citoyennes nekk leader coalition euh, tànn samer euh, section Guédiawaye du ñàkk fii ak événement yi di gën di continuer ñu amaat possibilité gën leeral yi ngi fi bàyyi te am yi ci xaw a lëndëm ci xel yi waaye ñu jàpp ko it joxante dig daje du yàgg dara incha allah ci benn entretien exclusif gërëm leen sant leen